asalaamaaleykum dal leen ak jàmm bëccëgu tay gi la àdduna wërngel képp di ci waxtané jabet ñoko ko door nak modi fédération internationale bu jabet gannaaw bañ ci may jappandalu OMS mu nekk bi nga xamanteni moy campagne bi gëna mag ci adna bi ngir ñu ci fasiyéné waxtané nit ñi nees def ba aru ci jabet ak it luy jabet ñu door ko atum 1991 ngir mëna a faagaagal li nga xamante nak modi di jabet bi wulé ñaa ci adna wërngel képp waral tay jile ñu fasiyéné indi ay léral Abdou khadir lan modi di jabet jabet ab feebar boo xam ne dalay top té kenn du ko fajj waye nak mën nañ ko traité mu mel ni nag li koy joxe leen la nga xam ne nag moom mooy ab euh, bu ñu wooy insuline moom mi nag ci ab mbir boo xam ne pancréas moo koy defar day tax suukar mën a dugg ci yenn ngir mën leen nag may doole su fekkee nag daanaka amoo diabète li nga xam ne nag moom mooy insuline bi day def euh, liggéeyam di la may doole ngir nga mën a yëngu bu baax waaye nag su fekkee ne da nga ñàkk wala sax deful liggéeyam mu mel ni nag koo xam dafa amee diabète daanaka suukar soosu du mën a doon carburant ngir cellules yi ngir ñu mën a nekk su fekkee nag euh, daanaka day dem ba ca bari ci li nga xam ne moom moo ci deret bi la bay ni nag suukar si taux bi yéeg bu baax la lañoo woowe hyperglycémie su yàggee nag li nga xam ne moom mooy léeg day indi sax yenn complication yu ci mel ni ci bët yi ci la nga xam ne ci ndigg li ci li nga xam ne nag moom mooy neer yi ak euh, lii di xool ak yenn ci fu deret bi di jaar mu mel nag diabète yi bari nañ ndax am na pré jabet am na diabète type 1 type 2 am na tamit diabète de grossesse ak yeneen yoo xam ne nag daanaka raar la def lool lu koy indi amul lenn loo xam ne nag mën nañ ne moo koy joxe ñu njortes ne moom ile bokk na ci likoy indi mu melni nak nag léeg ci judd ndax euh, walu fami amna ci su ko say mam wala say wajur amé mën nga ko am feebar bi le itamin nak di leg-leg bu bon da koy joxe tek ci nak li nga mën nañ ñak di yëngu di def sport da ci am solo wala itamin nak nga yor ap poids bu ngand soo ngandee daanaka dalay yomb mu yot la nan lañ koy traité euh, liñ ci mëna japp ni mom moy nak lekk bu sell daanaka di nako jappalé bu baax baax itamin nak di yëngal sa yaram baax na ci jël ci ak traitement yi nga nak moy médicament yo xamne mën ko nan yene mën nañ la ko lu ci mel insuline yi itamit nak mom ku nek ak ni nga xamne mo sa traitement amul ben traitement bo xamne ñëpp ko bokku ñu am jabet waaye nag ay traitement yo xamne day wuté ci nit ak benen nit nees def nak ba aru ci lek ku sel ni ñu ko waxee léegi def sport tek ci nak sa poids fexal ba bu mu ëpp itamit nak tux dañ koy moytu bu baax cigarette baxu ci tek ci nga xamne nak soko soo ko moytoo mun nañ jottes ne yene diabète yi du laal ben yoon moy lek gi tek ci nak ay di dem di saytu def dépistage ngir xol ndax dem na la itamit nag di def ay traitement yenn yoo xam ne nag dina ko moytu bu baax baax li nga xam ne mooy jabet li moo nekkoon seen numéro xam-xam joxe ndig daje beneen yoon